Amath Soumaré ñu ngi lay nuyu. ñu ngi lay fay. di fàttali nii yow sa xam-xam màcc na ci wàllum intelligence économique vice-président nga itam ca mouvement des entreprises du Sénégal xam nga ni ñaar fukk ak ñetteelu édition forum du premier emploi ki nga xam ni nekk na ci initiative mouvement des entreprises du Sénégal ca bopp ba président Mbagnick Diop da ngeen amal forum euh, fukki fan ak juróom benn fukki fan ak juróom ñaar ci weeru janvier bi fan ngeen hmm. toll ci wàccaay bi ah, ci wàccaay bi comme li ma la wax leen euh, que bi maanaam euh, xëy bi dafa changé ndaw yi dañu gën a yokk xëy yi gën a ñàkk économie yi maanaam ni ñuy ni ñuy saytoo suñu am-am gën a gën a gën a difficile léegi contexte boobu yëpp moom moo ñu teg loo xam ne léegi il faut nga utiliser sa bopp ak sa xalaat pour mën a trouver ay solution parce que li amoon bu jëkk secteur yi ñu doon jël pour emploi mooy gouvernement beeg ñu ñoom ñëpp kenn employé tout léegi ce fekk bu fekkee ne léegi ak krise bi am ci monde bi yëpp defuñu ay ay ay ay jëmtukaay yoo xam ne xale yi mën nañu xalaat nan lañ leen di indil ay xëy du yomb du ay wax rek mais il faut nga bu ñu waxee dara nga teg ci taabal ji dara loo xam ne dafa concret waaw lu luy concret moom mooy nga xool lan mooy fànn yi nga xam ne mën nga ko jël lan mooy segment yoo xam ne mën nga ko jël yoo xam ne ñun utiliser guñ ko ci suñu dëkk bi nga mën fa génn ay liggéey pour que xale yi mën a liggéey moonaam moom mooy lépp lu jëm ci par exemple li ñuy wax économie bleue mooy lépp lu jëm ci géej gi ak lépp lu jëm ci ci ci xam-xam yi jiga ci géej géej yooyu muy pêche beeg ni ñu koy mën a valoriser nga jël économie orange économie orange yi mooy naam lépp li nga xam ne moom mooy valoriser contexte culturel bi événement yi et tout ça xam nga événement yi beaucoup de monde lay jël communication beaucoup de monde lay jël communication événementielle nga jël par exemple sur économie verte léegi économie verte bi avec PSE dañu ngi am li ñuy wax souveraineté alimentaire la ñu bëgg souveraineté alimentaire bu ñu ko bëggee mooy lépp li nga xam ne suñu lekk ñun ñoo koy toppatoo muy ceeb ak leneen kenn du ko jëlee ci biti bu amee guerre comme bu am wala mu am Covid comme bi amoon donc gis nga dañu euh, ñi ñuy ñi ñuy jox. Euh, ceeb bi dañu commencé woon di indi ay ay ay jafe-jafe loolu yëpp nag daf lay yee ci àdduna nga mën a xam bu fekkee ne dafa am tolof tolof yoo jaar mu mën la yee pour que ëllëg loolu mën la bañ la dal at léegi bu ñu jëlaat beneen fànn boo xam ne toujours ci Covid bi bi ñu amee Covid bi dañu amoon problème pour am ay médicaments importation di ko indi ci dëkk bi parce que ñi doon jaay bëggatuñu sax du di jaay médicament ci biti loolu loolu nag ñu wàllu jéem a xool nu ñuy valoriser ñun suñu suñu jumtukaay yoo xam ne am nañ ko maanaam mooy pharmacopée bi moom mooy euh, faju gàncax beeg euh, lépp li nga xam ne mi ngi fi am nañ ko mi ngi université def nañ ci liggéey yu yu àgg liggéey yooyu nag léegi ba léegi kenn valoriser ko woon kenn jëlu ko woon defar ko pour nit ñi mën a pour nit ñi mën a mën ci mën ko jumtu jumtukaay yooyu ñu mën ko jariñoo léegi loolu yëpp nag moo ñu yee ba nga xam ne fànn yooyu yëpp dañ ko génn nañ ko di am na benn kii bu ñuy def ci jam ñaajo d'ailleurs ci affaire boobu donc parc bu mag ci affaire sanitaire donc euh, pharma pharmaceutique léegi pour mën fa kii suñu garab yi mën fa defar lépp li nga xam ne mooy pharmacopée yi parce que gàncax bi am na lu bari lu bari yu nga xam ne nit ñi xam nañ ko mais kenn defu ko ba nga xam ne nekk na sous forme comprimé wala gélule wala tëg bu nit ñu mën a utiliser donc wala euh, loolu yëpp nag dafa nekk loo xam ne def ñuy indil ay gis-gis yi nga xam ne nan la ñuy def pour que yi nga xam ne amul woon liggéey yu bare ñu mën a toppatoo liggéey yooyu indil leen ko. atum ren ji Amath Soumaré lan mooy particularité édition 2024 bi. édition 2024 particularité bi mooy nan la ñuy indee ay emploi ci contexte bi nga xam ne tey jii moom mooy contexte bu perturbé bu adduna bi yëpp perturbé bu mu la wax ci ci njëlbeen ne la woon euh, PAP 3 bi maanaam plan Sénégal émergent 3 bi plan d'action prioritaire bi ñu jël bu trois bi nga xam ne moom mooy commencé fii 2024 ba 2028 dañu jël axe yi pour développer industrie bi maanaam industrie bi 21 pour cent la ñaatu fukk benn ñu jéem a xool nan lañ gi def fii ak deux mille trente cinq mu mu doublé léegi duble boobu nag il faut ngay xalaat dex ay stratégie li nga xam ne ay stratégie yoo xam ne dafa nekk loo xam ne dafa dafa du du du ay ay këyit rek loo xam ne boo ko saytoo dafa nekk loo xam ne mën na am ci dëkk bi li mën a am ci dëkk bi moom mooy yooyu mooy niche yi nga xam ne emploi yi mën nañ ko fa génnee développement industriel bi xam nga li ñuy wax industrie bu njëkk ba euh, agro alimentaire bi moom mooy li mooy lu la wax sànq lépp luy développé kiwu gerte bi lépp luy développé engrais bi lépp luy développé donc euh, euh, affaire u affaire u napp bi boo xoolee loolu yëpp alimentaire la maanaam pétrole ak gaz bi ñuy am nii ci pétrole bi mun nañ ci génn ñaari fànn yu mag yi nga xam ne day jàppale industrie bi pétrole bi bu ñu defee li ñuy wax gaz to power ci gaz bi ci gaz bi ñu defee gaz to power à partir de gaz bi mën nañ ci defar électricité xam nga booy wax industrie il faut nga am électricité bu doy waaw gaz bi nag buñ ko kiwee gaz to power génnal na la électricité deuxième bi nga xam ne moom mooy li nga xam ne à partir de gaz bi mën nañ ci am koom-koom bu bari moo ci gaz bi mën nañ ci def lu ñuy wax urée urée boobu nag buñ ko génnee ci gaz bi mën nañ ci génnee donc ay engrais léegi problème mu engrais dootuñu ko am parce que ba tey jii may wax ak yow engrais bi ak urée bi ñu ngi koy importer Russie loolu moom mooy problème parce que bu fekkee danga bëgg am souveraineté te amuloo ay jumtukaay doo dem waaw loolu moo tax man a xalaat bi nag du ay wax rek du ay du du ay du ay du ay du ay nelaw ngay toog di di rêver non ay réalité ngay wax li ma la wax ni réalité la gaz bi mën nañu jox électricité bu doy ci gaz du pour ñu mën a pousser suñu élection sunu industrialisation mën nañu ay xam-xam yu doy pour ñu am urée jóge ci urée bi am engrais bu doy bu ñu amee engrais bu doy politique bi ma lay wax économie verte mën nañ ko développer fépp. léegi lan mooy innovation atum ren ji. innovation atum ren ji moom mooy dugal ci économie boo xam ne moom la ñuy wax économie xam-xam moom la ñuy wax économie de la connaissance mooy technique technologie bi. intelligence artificielle bi lépp li nga xam ne mooy jëm ci xam-xam bañ a jëm ci ay matériel de base parce que xam-xam moom mooy baasu baasu jumtukaay yëpp dëkk yuy jóg yëpp tey xam-xam la ñuy jógee boo gisee ñu ñu tardé au niveau suñu dëkk yi tubaab yi li ñuy jaay ba léegi ba ci TER bi ba ci BRT bi ba ci lépp dinañ la jaay loo xam ne yow ëllëg doo ko mën a defar il faut nga il faut ngay nga topp si ñoom li ñu war a def mooy que lépp lu ñuy def technologie yu ñu maîtriser ko pour ñu mën a am suñu autonomie boo ko deful toujours yaa ngi am dépendance dépendance boobu nag lañu ñu bëgg dagg complètement léegi indi xam-xam bi nit ñi jël xam-xam bi parce que Sénégal am nañu xam dëkku xam-xam lañ ko tegoon lañ ko xam ñi jàng ci président yi jàng Afrique yépp Afrique fii William Ponty la ñu jànge wala Université Dakar léegi xam-xam boobu la ñu war a jël nag ñun ñu approprier wu ko de telle sorte que lépp luy domaine science lépp luy domaine technologie lépp luy domaine industrie industrie à haute valeur ajoutée ñu mën ko approprier wu jël xam-xam bi liggéey ko di ko jariñoo ñi nga xam ne moom mooy développer xool li ma la wax sànq ci nii yi ma la wax économie bleue économie bleue ñun laaluñu ci dara économie orange laa la ñu ci dara kan mooy génn fii éco euh, université jàng économie orange kenn économie verte am na ay sous-emploi yu ndaw mais dañu war a am ñu nga xam ne dañu xarañ ci loolu loolu buñ ko defee ñu am ñu xarañ ak ñi nga xam ne dañ ciy liggéey da ñoom xale yi ñu ci bari ñu dugal leen ci secteur yooyu dugal leen ci secteur technique technologie yi dugal leen ci économie de la connaissance ñoom ñëpp dëkk bi day jóg alaakulaalin atum ren ji ñaata ndaw ngeen ni xaarandi ci li jëm ci forum du premier emploi xam nga forum du premier emploi at bu nekk ay milliers jeunes moom ngay gis foofu saalu saal bi gën a mag ci King Fahd Palace day fees ba ci couloir yi sax nit ñi dañuy taxaw léegi xale yooyu dañu am ay entreprise yoo xam ne dañ leen di recevoir pour jox leen chance jël seen CV am entretien ak ñoom balaa ñuy pare am na ñu bëri dañ leen di embaucher foofu am na ñi nga xam ne comme que nit ñi dañoo bari dañ leen di joxaat euh, beneen rendez ci entreprise yi pour ñu mën a gën a pousser seen waxtaan parce que waxtaan bi dafa difficile boo xam ne ñi ñaa ngi rang suba ba ngoon ci ñaari fan. su ma la déggee am na ci li nga xam ni moom moo jëm ci demandeurs yi am na ñi nga xam mhm. ni séance tenante dañ leen di recruter. exactement am na ñoo xam ne balaa ñaari fan di jeex am nañu déjà à recrutement. balaa balaa ñaari fan yi am na ñi nga xam ne ñu bari am nañu recrutement léegi ñi ci des nag comme que li ma lay wax ni ay rang la raj dañuy rang di rang di rang pour ñu mën leen recevoir. ndax mbooloo bi fay teew. mbooloo bu fay teew dafa bari xale yi dañu bari te région yëpp la ñu ñëw. Tambacounda Saint-Louis Kédougou Linguère yëpp Casamance ñëpp ay ñëw. moo tax moo tax yëf yi dafa dépassé sax MEDES parce que MEDES boo ko xoolee liggéey bu muy def liggéey gouvernement bi lay def deful liggéeyam normalement liggéey gouvernement jàppale wa boo koy wa kook sax kooku moom xalaat boobu sax kenn waru ko xalaat gouvernement bi moo ci waroon def loxo depuis première wala deuxième édition waaw nga xam ne lii yëpp jeunesse bi yëpp la concerné amul gauche ak droite ak centre ak ñëpp la concerné dëkk bi yëpp la concerné c'est un acte patriotique c'est du vrai civisme parce que mënoon nga jël xalaat sa sa li ngay def nga def ko feneen comme yeneen patronat yi mais benn patronat ci Sénégal moom mooy jël ay ay jumtukaayam na di xalaat nan lay jéem a jàppale ndaw yi. Amath Soumaré ñu ngi lay sant di la gërëm bu baax a baax. ñu ngi lay fay. di fàttali ni yow sa xam-xam màcc na ci wàllum intelligence économique bokk nga itam ci vice président mouvement des entreprises du Sénégal bi nga xam ni président Mbagnick Diop moo ko daal di jiite. ngi lay ziar di leen gërëm yéen ñëpp ak sa équipe bi yal na leen yàlla taxawu yal na leen yàlla taxawu